jërëjëfati mbokk yi woy ànd ak ñun di ñu seetaan boole ci di ñu déglu ti ci seen chaîne YouTube Biorahma ah, ci kàddu gi ngeen ci ànd ak Ablaye Ndiaye ñu daal di ñëw mbokk yi comme ni ñu baaxoo di ko defee saasu ne rek di leen indil ay facultéef yu am solo te bu ci nekk rek daanaka njëriñ wa ca nekk yaatu lool waaye dañ cey jukki rek benn goo xam ni daanaka dina doon gënal ci ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ak ñi ñuy déglu mbokk tey dañoo daal di ñëw indil leen benn remède boo xam ni képp koo xam ni bëgg nga mucc ci wàllu cancer ak cancer bu mu mën a doon mu ci meññeef goo xam ni miin ngeen ko xam ngeen ko muy grenade grenade la ca nekk ci njariñ bari lool ci ay principe actif yoo xam ni buñ ko doon lim fi la ñuy dee fanaan la muy jariñ nit ci dundam suñ ko doon lim fi la fanaan waaye lu mën a indil nit tamit ci dundam suñ ko doon lim fi la ñuy fanaan waaye yow miy déglu soo bëggee mucc ci cancer gu mu mën a doon wutal ñaari doomu grenade bu ñor nga daldi xolli ko soo amee mixeur nga mixé ko soo ko mixé ba noppi nga daldi wut ñaari kaasu ndox kaasu yu ñuy ndekkee nga daldi ko si sotti yëngal ko segg ko soo noppee soo xëyee suba le matin à jeun nga naan ci kaas bu mag ak genn wàll soo ndikkee ba noppi nga naanaat la ca des loolee soo koy farataal di ko def yàlla mën na la dimbali ci bépp keesu cancer rawatina cancer bii di prostate rawatina cancer bi di sein ak cancer bii di kolo kon mbokk yi yéen ngi déglu loolu la leen indiloon tey di leen fàttali ne képp koo xam ne bëgg na mucc ci xeetu cancer yi mu mën doon wutal ñaari grenade doom yu ñor nga daal di ko xolli <coughs> daal di ko mixé soo ko mixé nga jël ñaari kaasu yi ñu ndekkee ndox yu 250 millilitres nga jaxase ko ak moom yëngal soo xëyee suba la matin balaa ngaa lekk dara nga del ci kaas bu mag ak genn wàll soo ndekkee ba noppi nga naan ci la ca des kon mbokk yi abonné leen ci suñu chaîne YouTube te boole ci dañu topp ku ci am leen loo xam ni jaaxal na lu jëm ci wàll wi mën nga daal di wéyaan ak ñun 77 244 98 05 di leen wax ngeen abonné ci seen chaîne YouTube Biorahma